ñuy mujjee ak naka la ñuy tranché. mais y a le problème du Jaraaf aussi et de de Cheikh Londo. justement waaw ah, ça aussi c' est un problème boo xam ni bon mais que faire. waaw que euh, euh, jëm déwén incha allah daañu joué championnat boo xamante ni seize équipes la est pour yow moo gën wala dañu war a des ci li nga xamante ne moo di fi ñu nekk les quatorze. non moo gën foofu parce que man c' est un cri de boo xam depuis des années. maa ngi koy wax maa ngi koy wax parce que dama ni soo xoolee au monde. Sénégal rek ngay gis ñuy joué championnat élite bu quatorze équipes conséquence mooy comme ni Grégoire wax sànq chaque année nga rësal benn équipe boo xam ni parce que mi ngi naan il part du Casa Sport su dul Casa Sport kan la ma waaj après. Stade Mbour kan mooy waaj après Jàmbaar kan mooy waaj après Gorée kan mooy waaj Sonacos chaque année nga dégg ñu ne non championnat moo tax. Mm-hmm. bi ñu ko élargir yóbbu ko seize. Mm-hmm. comme ren ma ne alhamdulilah. parce que là. waaw yóbbuwoon nañu ko indiwaat ko 14. non pro bi moom mi ngi door a dem bi ñu ko bi bi ñu nekkee professionnel ba léegi. ñu ngi door a dem 16. mais na am 20 équipe non non mosul boobu deux poules la. deux poules la boobu amateur la woon. Mhm. après ñu defoon ko fi mais depuis ñu nekk événement football professionnel ba léegi. 14 mhm. équipe la ñu nekk. te 14 dafa serré soo xoolee diggante bi diggante 2009 ak léegi. Mhm. xoolal équipe yu mag yi ci wàcc yëpp ñaata la. Ah, xoolal rek bëri na de. c'est vrai xoolal ñam. c'est vrai. Euh, Gorée. Wakaam Wakaam. <laughs> chaque année nga dégg benn. équipe bu mag ne la benn équipe bu mag wàcc na. Sonacos wàcc na fi su ma jumlee deux fois yéegaat. Mhm. mais quand c'est seize c'est élargi. c'est élargi tu calculer des matchs la moom comme li Greg wax sànq la là les problèmes de boo vont s'imposer parce que tu auras trente matchs. Mhm. à jouer mhm. bokkul ak vingt six. là su bokkee ne équipe bu am ay dépenser plus beaucoup de moyen élargir ko ah tu peux faire une planification gérer ko. Mhm. mais si c'est rétréci match yëpp match ay final la. Mhm. cest à la première journée da nga naan non ma ko ñàkk. effectivement loolu moo indi tey problème mu génération bi ak Jàmbaar euh, parce que début saison bi bi nit ñi nekk à leen di ñoom ñi ngoon seen contentieux ak waa ligue bi. Mhm. du ma recevoir fii du ma recevoir fii. donc ñoom préparé wu ñoom pour. pour déplacer wu dem génn. joué ci par exemple. ci mhm. beneen terrain. Mhm. parce que ñoom dañu cantonné woon ni ñoom seen terrain la ñuy joué. Mhm. soo xoolee ba ñu joué deux journées ba ñu forfait leen sax. après la ñu reprendre. pour commencer à jouer kooku soo parewul gars yi dañu duñ la xaar.